asalaamaaleykum mbokki jullit asalaamaaleykum mbokki taalibe yi tubaarikàlla macha allah nee naa la ñu ngi nii nag ci bis sëñ Mbàkke Baaxum bi bis bi nekkoon démb tubaarikàlla soppe yi ànd koog moom mbokk yi ànd koog moom xarit yi ànd koog moom waaye ñi mu bokkal xasida yi ànd koog moom tubaarikàlla maa ngi feggoo koo xam ne si kenn la ci moom di sëriñ Mbàkke Jóob tubaarikàlla macha allah nga xam ne ku ci xewle rek sa morom dina def délégation ànd ak say soppe fekk si fekk si nekk kon ñoo leen di ñaanal yal na yàlla guddal seen fan te wéral Serigne Khadim Kebe léegi la wàcce kàddoom tubaarikàlla amal fi njàng mu am solo waaye ñu ànd koog site bi nga xam ne tubaarikàlla liggéey ak jaamu yàlla foofu la ñu teg seen tànk doon ñoo xam ne tubaarikàlla fu ne la ñuy dem ci réew mi ku ne leen di soxla waaye doon ñoo xam ne tubaarikàlla liggéeyal Seexul Xadim rek moo leen ñor muy waa Dieng Saala TV ñoo ngi leen di kontaane di leen ñaanal sunu borom yokk leen taxawu leen bu baax a baax li nga xam ne yéene nañ koo liggéeyal Seexu naa Seex Ahmadou Bamba Xadim Rasul sunu borom defal leen kattan ak ndam ba ñu matale ko Serigne Mbacke Bakhoum bis bi yàlla na ko yàgg woote ñu yàgg laa wuy si ci barke Seexuna Si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ki doon yëkkati kaddu yi mooy Baye Diadji communicateur traditionnel la qualité fait la différence communicateur Mame Cheikh Issa Diène wasalaamaaleykum wa rahmatullah Serigne Mbacke Diop jërëjëf ah asalaamaaleykum mbokki jullit yi asalaamaaleykum mbokki taalibé yi comme leen ko waxee woon rek tey nag ñoo ngi fii ci kër Serigne Mbacke Bakhoum bis bi nga xam ne doon na ko amal démb di le mille mars 2022 ànd kook ay bokkam ànd kook ay soppeem ànd kook ay xaritam Serigne Mbacke Bakhoum tubaarikàlla njàng mi tubaarikàlla ñi fi teew ñëpp ku ci kàddoom rek yéene lay jàngee waaye nag tubaarikàlla Serigne euh, Mbacke Bakhoum euh, ni nga mel rek moo waral tey bi nga wootee say soppe ànd kook yow say xarit ànd kook yow ñëpp ñëw wuy si la tubaarikàlla ñu ànd kook site bi xam ne si liggéeyal Seexul Xadim rek moo leen ñor muy waa Dieng Saala TV noo ngi leen di kontaan di leen sant bu baax Serigne Mbacke Bakhoum daal nee na ma tey damaa bég sama xol daa sedd li ma bëgg nag mooy soppe yi nga xam ne ñi ngi ci biir dëkk bi soppe yi nga xam ne ñi ngi bitim réew nga santal ma leen bu baax soppe yi nga xam ne tubaarikàlla ànd nañu man bis bi ak ñi nga xam ne yàlla dogal na amoon na yéene teew te teewuñu nga santal ma ñëpp sëriñ Mbacke daal nee na xolam sedd na ci soppe yi xolam sedd na ci dëkkandoo yi xolam sedd na mbooleem koo xam ne si rek ànd nga ak moom bi barke Seexul Xadim sëriñ Mbacke baaxum yàlla na sa jàmm yàgg bis bi ko yàgg woote ñu yàgg laa wuy si nga ànd kook sa soppe yii nga xam ne wax dëgg yàlla waxuma bis bi bi mu jub see waaye bis bi bi nga ko jàppee mën naa ne bu ñu génnee ci tànt bi la ñuy commencé waat di waajal bis bi déwén di waajal bis bi euh, jëm déwén kon noo ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal euh, yàlla mi nga xam ne moom rek moo di buur yàlla na yàlla yokku leen ci barke Seexul Xadim Serigne Xadim Kebe léegi la wàcce kàddoom euh, amal fi njàng mu am solo Serigne Mbacke Bakhoum ñoo ngi lay ñaanal bis bi yàlla na ko yàgg woote barke Cheikh Abdoulaye Mbacke Euh, sécurité bi tamit doon ay soppe waaye nag wax dëgg yàlla ñu taxaw ci taxawaay bu rafet ñoo ngi leen di sant di leen gërëm sëñ Mbàkke daal nee bay bàyyiwul kenn mi ngi sant waajuram yi di sant dëkkandoom yi di sant xaritam yi di sant mbokkam yi bàyyiwul kenn bu ne ñëpp bàyyiwul kenn waaye bu ne fépp bàyyiwul fenn tey fu nekk nit bàyyi ko na fi ci réew mi fu nekk nit bàyyi ko na fi ci Sénégal muy Fuuta muy fu mën di doon ci biir réew mi rek ñëw wuy ci Serigne Mbacke baaxum ci bis bi nga xam ne daf ci doon sant Seexuna Seex Ahmadou Bamba di ci delloo Euh, Serigne euh, Abdou Lahad mbake borom Touba Belel kon Serigne mbake Bakhoum yal na yàlla defal la tawféex yéene ji nga am ci xaside yi yéene ji nga am ci liggéey Sëñ Touba bi sunu borom defal la kattan ak ndam ba nga matale ko sunu xol sedd na sunu xel dal na tubaarikàlla say bokk ànd nañ koog yow say sopp ànd nañ koog yow say dëkkandoo and nañ koog yow say waajur ànd nañ koog yow mboolem ko am lanteel rek ànd na ak yow bis bi kon noo ngi lay ñaanal yal na yàlla taxaw la barke Seexul di ñëwaat Euh, dàq bii nga xam ne si moom moo jàll ci barke Seexul Xaddim yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko def soppe yi bakke kontaan na ci yéen taxawaay bi rafet na lool euh, sañse ngeen sañse yu rafet duy seen i poset ba mu fees dell ñëw di teral jànkati xasaay di di teral ñi fi doon waxtaane sëñ Tuubaa di teral ñi nga xam ne ñoo doon yëkkati ay kaddu kon nag sëñ Mbacké sant na leen gërëm na leen ngeen ñaanal ko nag sunu borom yàggal ko fi tëbëral ko yéen ji mu am ci mu am ci liggéey sëñ Tuubaa bi borom defal ko kattan ak ndam ba matale lépp ci barke Seexuna Seex Ahmadu Bamba ku leen yëkkati kàddu yi mooy kan Baye Diadio communicateur traditionnel la qualité fait la différence communicateur u maam Cheikh Issa Diène wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu le 31 mars bii daal ala daw me na daw me na ala ba déwén incha waaw kon gars yi bu leen fàtte abonné ci site bi Dieng Saala TV na ñëpp abonné sant nan baax gërëm nan ñu ngi lay ñaanal suñu borom yokku la dafa la tawféex ci barkeb suñu saaliw na ñëpp abonné ci site bi jërë ngeen jëf daleen ak jàmm ci Dieng Saala TV ñu leen di ñaan bu leen fàtte abonné te ngeen laal ko ci notification bi loolu mooy tax vidéo bu ndugal rek ngeen mën ko am jaa ngeen jëf